la kon kooku doo ko jàngal bëre doo ko jàngal làmb boo xoolee moo njëkk pare waaye làmb ji njott naa nag dinañ gis làmb ju neex bàyyi jiili Ama Dia ñoo ngi koy jaajëfal bu baax ndax combat combat jànk yi ku ne bëgg na ko ay xale nga tëgg leen grand combat arbitre bi sifflé na bàyyi jiili. ayca arbitre bi sifflé na Ardo moo la woon ginnaaw Madji Kaïré moom nga jàkkaarlool mbokk yi Ama a production le 9 décembre le 9 mars 2022 fii ci arène ndaysaan mbokk yi mu tombeeg mercredi mu nekk journée boo xamante ne ñaari xale yi ay jàmbaar lañ ay garmi lañ ay mbër lañ kii di Mbagnick Kaïré doomu Boy Kaïré la Boy Kaïré mooy baayam moo ko indi Ardo nee na fii ku fi bëriwul sa baay bëri na mbaa sa mag mbaa sa nijaay xoolul loolu Ardo jiital tànk càmmoñ Mbagnick jiital tànk ndijoor Ardo nekk garde normal Mbagnick nekk fausse garde tànk bi fi mu toll nii bu ñu doon xool ci lecture lamb tànk mbañik moo gën a jubbu tànk bi ardo teg moo gën a jubbu mbañik que tànk bi mbañik tegal ardo ñu xool ba xam ñoom ñaar fan la ñuy mujjee arbi bi sufle na ñu ngi leewaatoo Ousseyn mbañik dafa mel ni ku bëgg a dem xeex ma waral wax gis nga doo ko cee bëgg a woo gis nga xeex faaw mu am ci faaw ñu xeex ñoom ñaar mënul ñàkk parce que loolu mooy tijji buntu mbañik pour mu bëgg ardo faaw mu xeex moom pour mu na am li na saa bu tuusee fa ko bëgg a yegg dana ko fa yegg mais est ce que Ardo dana ko ci bàyyi ndax Ardo loo ci mën a dégg ba dégg ko ci amul benn combat bu mu bëre combat bu yomb wala combat bu gaaw combat bu mën a bëre da ciy xeex da ciy bëre mais est que tey xeex bi dina ko may ki nga xamante ni mooy Mbagnick Kaïré Baye Djily. ayca Ardo Mbagnick Ardo boo woon ginnaaw ngembo ngemb lu ñuul li Mbagnick moo féete càmmoñ ngembo ngemb Lagos bi am na lu weex luy lang ci ngemb Mbagnick bi. mystique yi bëri na tegtal yi bëri na xarfa xuufa yi bëri na waaye actuellement fi mu toll ni bëre rek mooy feeñ wàcc ma daan na wóorul ku daan da koy féete kaw Ardo Mbagnick ñu ngi ci combat bi ñoom ñaar parce que est-ce que nañ round d'observation am ci làmb ji non munu cee ñàkk munu cee ñàkk parce que loo ci mën a dégg ba dégg ko ci Mbagnick Kaïré même comme que Ardo ci victoire la jógee Mali jóge ci defet lu mu yàkkamti yàkkamti yàkkamti dañ naan ko respecté ko parce que ñaari mbër bu ñu ba di naan ko ba leen naataable rek combat bu jaadu te ñoom ñaar ñi ku ci nekk xale lamb da laa bàyyi xel Mbagnick nee na ma ah, fii du sama place ci lamb ndax man ay ñoom Bulldozer laa dajanteel ay ñoom Jacob Baldé laa dajanteel ñàkk adversaire moo ma tax moo ma duggoo ci Ardo mais ñàkk adversaire boobu tamit Ardo adversaire la adversaire de taille ndax xale la boo xamante ni li mbër di wër moom am na ko. mbër bu ci nekk da bëgg ñu xam na wala nga am tur Ardo am na tur boobu te li ko may mooy liggéey ak sérieux ci boppam kon mañu dina ko jox temps bi temps bi mu laaj dina ko jox ba xool lan la Ardo andi ba noppi mu doog a jëflante ak moom. ndeysaan ñoom ñaare ngi noonu dégg ngeen Ousseyn li mu wax ci combat bi dox ci digganta Ardo ak Mbagnick Kaïré ndeysaan combat bi yàgg na ci xarfa xuufa yàgg na ci préparation ma ngay bëgg a ci bëre. ndaysaan Ardo actuellement mu ngi koy déglu di xaar lu Mbagnick téye Ardo bu doon maa yee di ma saxmal sa tànk bi ndax Mbagnick ci tànk bi la jëm day cokkaas ak waaye dina jëli Ousseyn wala yaakaaroo loolu. jël jël na tànk tànk ba lu ma la waxoon Ousseyn lu ma la waxoon. Mbagnick ba fa mu koy yegg sori na fa koy yegg sori na fa koy yegg sori na waaw xale yaa ngi bëre. Eh, je suis très content. je suis très content takk na ko est-ce que Ardo dina ci génn. mën na cee génn. mën na cee génn parce que takk bi dafa sori. te boo xoolee kii di kii di mbañik ndaama la am na yóotu bu muy yóotu risque lay doon ci moom moo ngi koy tegal 16 da koy mbot da koy mbot da koy mbot yegg jugaat nañu da koy daan wala daanu ko ko. gis nga takk bi nee naa takk xoolal. day bàyyi day bàyyi. day bàyyi. waxoon nga ko non day bàyyi. yaay lamb ndaama du takk. Ousseyn gis nga supporter yi yaay seen baay. ñooy <laughs> seen baay. <laughs> la ilaha illallah. aywaay combat baa ngi noonu. Ardo Mbalik. ña ngay doxal. Ousseyn Ardo bett na ma. indi na bëre bu ma bett ci moom. wax naa ko Mbalik nee naa ko bi du ma moroomam mën na ko da ngeen a bëggante. parce que école da daan daw ci man ci ñoom ñaar ñëpp xam naa ne dañoo bëggante parce que gis na làmb promoteurs yi ñooñu gën a doon ay amateurs lu ñu yëkkite ba def ci seen xaalis rek yaakaar nañ ne dina leen mën a yóbbu fenn fii dégg loolu li may wax tey booy yi ay xale doo ko fi nekk mais amateur yaa ngi toog da nga gis làmb mu am balaa grand combat bee jot ñëpp jug dem ñibbi mais ñëpp a ngi toog di xaar parce que xam nañ ne ay xale lañu lamb mercredi ku ko ñemee tëgg. kenn kenn ñemewu koo tëgg. boo deme ba ko tëgg rek. am nga confiance ci li ngay tëgg ak li nga xamante ne moom nga dugal sa xaalis. waaye mbañik la mu foogoon ardo defe naa ne lamb ji dina mën na gën a yàgg tuuti ndax mbañik. yaakaar na ne bu ñëwee day jàpp ardo rek saa ko mais ardo fonk na lamb ji mbañik fonk na lamb ji li ma koy conseillé moom moom mbañik wala boog li nga yaakaar ne li ma yaakaar ne mën na woo bëree na jàpp déglu ndax xale boo entraîné mu entraîné looy def lu nekk day wóor loo def lu nekk le woykat waxoon na ko nee na looy defati na lay leer waaye ñoom ñaar ñi ku ciy def na la leer sinon mbetteel dina la ca fekk bàyyi ji lii. looy defati na lay leer Ardo looy defati na lay leer Mbagnick moom la Ouzin wax ñu xool ñoom ñaar ñaari xale yi bëri nañ ambiance am na ñoom ñaar tactique de jeu am na ci làmb ji jël na tànk Ardo ñu jargandalu daanu ci suuf jugaat continuer waat action bi ñoom ñaar fi mu toll nii actuellement ku ci nekk bokk na ci combat bi Ouzin liñ daj ci mystique yëpp man da yaakaar naa mystique feeñu ci combat bi actuellement. wax naa la ko sànq ci xale yi doon bëre xale yi nañ gën a fonk entraînement ndax ñoom ñaar ñi boo xoolee xam na ay xale yu ndaw lañ mën naa ne ñi fi bëre premier combat ba neuvième komba ñoom maguñu ci kenn mais liggéey ak sérieux gëm seen bopp moo la yóbbu fii ñu àgg ndax ma Mbagnick boo koy xool bi muy bëre ca tournoi ba ñoom bi désert dafa tuuti woon. mais par rapport boo ko xoolee di xam ne am na fu mu teg làmb te liggéey na kii di Ardo moom tamit xale la boo xamante ni nii boo ko gisee da xam ne carrément sànq am na benn mbër bu moo ko wax fii nee na ma kii dafa teel a bëgg entraînement bi ma déggee ne day bëri gëmuma ko takka moo koy bëgg a takkaat moo koy bëgg a takkaat mais nag bàyyi ji li mbër du maye mbër du maye Ardo ni muy ajee loxo bi bëgg mbañi keneen dugg ci wet gi mu mbot ko wala boog mu yaakaar la mu liggéey ba di ko may man d'accord ma loolu wala pataxal wóorul ci làmb. wóorul wóorul parce que fi mu gis nga loo sa morom bu ko jëlee nga ñàkk. tàqalikoo nañ. Ardo Mbagnick ñu ngay leewaatoo ñoom ñaar. Ndeysaan. Ardo doon na jël na coup. Ardo ni xeexee est-ce que baax na. est-ce que ni muy xeexee baax na. a nga koy xool. Ardo daw na daa bëgg a jeexal combat bi. Mbagnick nga ñu ci suuf. Ardo Mbagnick Mbagnick Kaïré Ardo Golf Gaynde ndaysaan kii nekk écurie Boy Kaïré papa moo yor écurie bi kii nekk Gaynde ndaysaan zam moo ko indi ñaari xale yaa ngi noonu fu ñuy mujj ñoom ñaar préparation mystique bi yàgg na fàqat na ko war na ko ndomba Ardo est-ce que nga ci génn est-ce que di nga ci génn Ardo est-ce que dina ci génn est-ce que dina ci génn est-ce que dina ko mbot da koy mbotam du ko mbot dina ko mbot eh, waaw waaw sama xol sedd la waaye xale yi bëri nañu duñu eh, wala waaye lamb xale lamb xale waaye reporter xale reporter xale waaye sax xale waaye waaye kenn démb teewu ci ñii tey li ñu def stade bi tol nii dégg loolu li mu la nañu mottali seen contrat rek ku daan dem ca kanam ku ci daanu di nga amaat combat xale def nañ la ñu waroon def. xam nga kan laa yërëm. déedéet ki daan. Eh, koo koy am ndax ca kaw la jëm. dañu lay laaj. moo ma jaaxal. noo lay wax ji. mais nag xam nga ne xale yi ñëpp a bëgg a yëg. ñëpp a a lamb loolu la Ousseyn daan dem daanu xaar. waaw loolu la de. ñoom ñaar ñi Ardo ak Mbagnick fi mu toll nii bu ñu daanee. yëg nañ ca kaw. est xam nga ne ñoom ñaar suñu def Fatick moo ngi feeñ ci kenn ki. Ah. suñ def Fatick moo ngi feeñ ci kenn ki. nan nga ko mën a xamee. xoolal ñaari mbër yi. xool am kuy nooyu nooyu bu baax. non dégguloo li ma la wax suñ def Fatick feeñ na parce que gis nga boo ñëwee jàkkaarloo sa moom ne kutoo kut ji day jeex su làmb ji yàggee rek effort bi nga def ci làmb ji force mu feeñ. ndax ki taxaw di la xaar nga bëgg koo force bëggoo imposer boo ko imposer te jàllul rek dépassé nga plus énergie que moom moom mi taxaw di xaar waaye saa boo dépassé énergie. fekk moom la mu la nga yaakaar moo fa nekk nekk fu boo doolee ci kawam lamb ji day jeex. kon ñaa xale yaa ngi noonu bàyyi ji lii xale yi xeex nañu bëre nañu bàyyi ji lii. Ousseyn yow ngi noona ndeysaan dégg ngeen li mu Ardo ndeysaan ak Mbagnick Kaïré. dégg maat ne li gars yi foogoon li ak li am bokkul lu tax mu wax loolu. ah moo ko xam. nettali sa gént bëgg a nettali gént morom. ah ci seytaane la bokk. seytaane la bokk mais Ousseyn ñi doon joxe favori ñu bari. kan lañ joxoon favori ci ñoom ñaar. keroog Serigne Ndiaye. croyance dafa ne ma. ñaari booyee kan mooy favori. Ah. mën na ko xamuma ko. parce que ñoom ñaar ñëpp ay xale lañu. dafa ëpp lu mu bëree. ak fi mu duggee. mais ñoom ñaar ñii amul favori. cinquante cinquante la. peut-être Mbagnick combat yu bëree peut-être xeex bi da ci ëpp. mais Ardo su ñëwee day bëree. kon kii kuy xeex ak kii bëre bañ na ko ba dañ ne bëre dóor bu doon lu simple la ñu ne peut-être ardo moo ëpp avantage mais comme que bëre dóor la ñu wax mañi bu dee xeex di bëre am na avantage ardo tamit bu dee bëre di ci boole xeex am na avantage ñoom ñaar cinquante cinquante la man moom làmb amoon lu ma ci ragal bu fekkoon mañi moo moo moo ëpp soixante-quinze pour cent dama naan la mañi nga mën bu doon ardo la mën dama naan la ardo moo mën parce que kenn jox ma ci ma lekk kenn joxu ma ci ma naan mais ñoom ñaar ñi cinquante cinquante la moo bi ñu jàppantee mu métti jàppante bu yàgg bii nag yëpp noppalu la gis nga jàppante bu yàgg yëpp noppalu la. arbitre bi atte na xoolal léegi kan sonn ah <laughs> Ousseyn pratiquement moo ngi feeñ. Ah. xoolal ñaari xale yi. wax nga dëgg de. non yow mooy yow ñun ñun. ñun ku doyal ci làmb moo te dina gën a yàgg. Ah. bu ñu taxawee jàppante wuñ bu ñu jàppante waatee bu ñu jàppante waatee dinañu téye ñu noppalu. parce que am na ku ci sonn ñoom ñaar. Ardo jox nañ ko avertissement. waaye public am amateur yi wala public bi ànduñu ci arbitre bi nag xam na lu tax mu joxe avertissement ci ñoom ñaari xale yi waaye en tout daal mbokk yi Ardo moom moo leen woon ginnaaw Mbagnick Kaïré ngeen jàkkaar lool ndaysaan Amadou production moo ñu woo fii ci arène nationale fii nga xamante ni làmb ko moom fii nga xamante ne ay ndaanaan yu nekk laale nañu fi arène bi yàggul de waaye ay mbër daanu nañ fi bataay Ousseyn. mais nag man am na lu ma jaaxal. muy lan. ba ma daan gis. dese naa ko gis tey. lu tax loolu. xamuma ko. lamb nag nu ne lay dikkee. mais Magic ba ma daan gis. gisuma boobu Magic tey. doo mbër xaaral ma laaj njëkk a doole li Ousseyn wax moo ko gisee. Magic ah. ah. daa sonn. daa jël poids gisoo ko. daa nii mooy loolu yaa ma gën a xam. mais waxuma loolu de. Ah. Bally dugalagul bari. ku nekk sa faral gis nga kon la ma la doon wax kii di njaka doole dëggal na la boo xoolee ñaari xale ni ñu commencé tension bi fa mu tolloon commencement ba dafa li bu doon courant ñu ne bés tension la ñoo ngi taxaw léwtoo bu yàgg bi yëpp dañuy noppalu mais baa jil boo xoolee léwtoo bu yàgg bi ba léwtoo bu yàgg bi gis nga li dañuy dañuy reculer noppalu parce que di lewaatoo nii te dóoraloo jàppaloo entraînement la bàyyi jiili te contact boo jàppante doole ngay fournir boo bëggee taxaw léewtoo léewtoo bu yàgg da ngay gën a perte énergie. da nga góor balaa ñam ko. billaa yow ñoom ñaar ku ci nekk natt na moroomam ci doole. actuellement ku ci nekk xam na lu moroomam di saf fi mu toll nii wala aspirer jege waaye en tout cas kenn amul favoriser ci combat bi. jàppante non ba am ñoom ragal naa am ku xeex wala ku ci yóotu tànk moromam te bàyyiwoo ci xel ñu dóor la nga rot Ousseyn. waaw ñoom ñaar ñoo xaw a tolloo ñoo xaw a tolloo mais Ardo nag boo xoolee buy xeex ni muy ni muy ni muy xawee sëgg wala ni muy xawee kii man daa ko ko ci. parce que mbër booy lewaatoo moom da ngay di ko xool buy jóg nga mën koo gis. buy départ di ñëw di dal sa kaw nga mën koo yëg mais saa boo sëggee buy départ di ñëw boo bëggee sigg bu desante yow boo amul chance dëgg mbañik fa muy dóor na tànk ba Ardo est dina ci génn Ardo est-ce yoon di nga ci génn jëlaat na tànk est-ce nga ci génn Ardo est-ce nga ci mën a génn est-ce que dina ci génn Ardo mbañik jël na tànkam mbañik jël na tànk Ardo mbañik da ko bëgg a lu mu naat Ardo li mu bëgg def du sotti Ousseyn du sotti du sotti du sotti Ardo mbañik wër na ko ndoom mu ngay door mbañik a ngay dóor mbañik a ngay dóor Ardo daa bëgg a jóg Mbagnick wër na ko domba ma ngay dóor ci suuf Mbagnick a ngay dóor Mbagnick a yi dóor Mbagnick a ngay dóor Mbagnick a wër na domba ardo oh dóor yi metti na waay plaqué na ko bañ na ardo bañ na Mbagnick a ngay dóor ardo bañ na Mbagnick a ngay ardo bañ na ah, ardo lii penalty la ci lamb munoo cee génn déedéet gëmuma ko boo ci génnee ma xam ne ndaanaan la Ousseyn. mais nag baa jili mbañ bu deful ndànk rek Ardo dina jóg. ah wóor ndomb boo ko defee da ngay jàpp ba mu dëgg nga concentré wu. mais soo bëggee dóor bëgg a def leneen lu ci bokkul bés bu la gënee concentré parce que la njëkk a gën a suuf moo la gën a mën a xam pieds muy teg na def ndànk rek. daan na ko. Mbagnick daan na Ardo da ko wër ndomba ñett ko ci suuf. Manick daan na ko la ilaaha illallaah Manick daan na Ardo Manick daan na daan na Ardo